nekk seen seen mbër xam nga gis naa ni vraiment dañ ma yéene jàmm et xam nga sportivement xam nga jàppale nañ ma ci combat bi quoi. combat xaaral demoo Maka Diané ak Bogal. non naa Maka Diané dem naa Bogal <laughs> xam nga Maka Diané moom xam nga man taalibe xam nga doom laa fa parce que fa jàng kii lu bari quoi. voilà Bogal tamit aussi Thierno Abdourahmane bari waxi noppi quoi. mais Fadel non dina suma kanam rek ñu koy préparé suñu staff. waaw mais xam nga boo jugee ci combat dafay laaj xam nga. nga defar waat xam nga préparé waat quoi waa ñu ngi ci phase boobu quoi waa mais bu ñu paree moom incha allah képp ku ñu làmb boole la ñu war a moom rek dinañ pare pour bëreeg yow quoi waaye. kon da des pour safal ko ba tey. waaye nag dañuy job parce que man samay morom laa fi nekkal waaw samay morom laa fi nekkal jàmbaar li ma leen di wax man du ma waxantu parce que man góor yàlla laa ah, du ma waxantu bu ñu tegee carte d'identité yi walaay suñ ma magulee un maguma leen ku ma ci magee deux ans ma xot sama licence ci jour bi laa koy xotti bu ñu indee carte d'identité mu leer parce que jugement yi dañu koy xam man samay man dama teel nekk booy bu ndaw di yor saag yi di yor ngemb yi di ànd ak suma grand di dem tey ñi ci bugguma ay tur ay champion mag yi fi nekkoon ma yàgg ak ñoom teel a siiwu géej dèjà ma dem topp géej topp ñu ma sax arène ngi dégg dem ba ñëw ci mbapat yi xam nga parce que man ku xam Eumeu Sène rek ci xaleem ba mag ci làmb la sama tour nag teel a dem à 18 ans nekk naa champion d'Afrique xam nga dem naa demaat dama ànd ak ñoom Yékini ñoom Rock Balboa champion yi ñu fii coow yëpp dama daa bokk ak ñoom regroupement di ànd di voyage ak ay drapeau chef de l'État téye mbappat lu toll ak 5 ma kenn mënu daan téye ci mbappat tëb lambu séeréer lambu tukulóor comprends nga léegi nag Eumeu boobu gars yi koy yàgg di dégg mais ñoom samay morom lañ boobu xëy na ñoom ñu dem jàngi métier wala ñu ngi ci leneen mais xam nga gars yi moom tey bu Pape Sarr ñëwoon suba suba ci làmb xale lañ koy jàppee bi sow ñëw ci làmb mais duñu xool at yi ak la quoi. man waaw communication tamit aussi bu may dégg commune li euh, communicateur traditionnel yi. tout le temps dañuy wax loolu di ko wax ba nit ko seen xel. mais man amu seen. su ma mënul damay bàyyi parce que samay fans sax samay supporter waaw dara jaralu ma loolu quoi man bëgguma gàccee. yi naa xam nga loolu la affaire bu demee su ma demee nañ xam ni. ci 15 ans benn mbër moomu ci daan muy Modou Lo 15 ans yi. mbër yi fi gën a tëdd leen daan. waaw keroog rek làmb ji wane na ko. kan moo fu ñëw Balla moom moo tëj ci làmb ji. ñaari yoon laa ko daan. Bombardier moo daan Balla moo daan Modou Lo mënuñu ko daan. dama ko daan. la dageer mu doon bëri ko daan match nii la ak moom te ñëpp xam nañ match ni mu demee. Mhm. kon tey ñooñu ku mënul daan Bombardier si ñoom ñooñu xanaa su ma bàyyi làmb ñoom dañuy dañuy dañuy ñu ma ñuy ñoom biliyaan noonu demee xam nga daan naa ñoom ku ñu mënul daan. ba pare daan leen ñoom ba ñu jeex. voilà ba ci Gris Bordeaux su ma ko may ñoom ñëpp dama leen daan. tàkkusaan yi métti yu tar. waaw combat yi gën a métti combat choc combat jànk yëpp maa ko bëre. c'est que dama nekk ni mbër mu xam ne mënewu ma ok Eumeu Sène ba am na défaite amaan na défaite yaa parce que man ñam naa défaite ñam naa victoire xam naa ñaar bu mu saf ok làmb ñam naa ci lu neex ñam naa ci lu naxari ok mais bokk naa man ci mbër yu bëre cachet yi gën a cher Faka ah, man, sa mwa kache pou mwou mwenye brè ak mwou dlou, 175 milyon lakou brè. Mwen doun mwen brè 45 milyon, mwen brè 45 milyon. Wala, lola fe mwen doun men. Faya nenman, faya nenman, 450 milyon sou mwen digantek bala gayi ak mwou dlou ak mwen brè. Le mwen yo wak nyem mwou dlou, nyem mwen deg, nyem bala gayi, nyem mwen deg. Wa, wa, skye nyon kou boukoun nou kote. Eskaf, 450 milyon mwen lè lè nou bò brè nan bala gayi biti bok mwot la. Ok ? voilà loolu kon man bokk naa ci mbëri gën a cher. voilà kon nag wax moo moo kiw rek man mënu ma di wax wala ngay bàkk wala dara mais incha allah maa ngi defarwaat maa ngi waajalaat te incha allah ci kàttanu yàlla dinaa ñëwaat te su ma ñëwaatee dinañ gis leneen incha allah maa ngi waajal waaw bu baax. xam nañ làmb xam nañ yoon bi ok mi ngi yegsi na mooy jaaxal gars waaye mi ngi ñëwaat waruloo mën a jaaxal. dinañ gis leneen lu bokk nag ëmb bi ndaan gi. non incha allah ñu ngi waajal daal. man gis naa sumay fans du dëgg gis naa sumay fans gis naa suma ginnaaw nu mu yaatoo gis naa nu mu tolloo voilà kon tamit aussi am na neneen nu Eumeu seen war a ñëwaatee te incha allah ñu ngi ciy liggéey ak suma staff maa ngi ciy liggéey tamit aussi ak sumay nit quoi.